gannaaw bi mu jëlee dogal dakkal li nga xam ni moo di ay procédure ak lu jëm ci wàllu këyit ci euh, jëmee ko ci wàllu suuf président de la république Bassirou Diomaye fay sol na dalam ñëw fii ci mbuur 4 ak nouvelle ville bu Thiès ànd ci nag ak autorité administrative yi ak maire yi nga xam ni ñoo jiite communes yi nekk ci euh, bërëb bi li mu gis nag gannaaw waxtaan bi mu amal ak service urbanisme ak domaine mooy ay dogal yoo xamante ni jaarul ci yoon ndax gis nañ ni am na ay nit yoo xamante ni jox nañ leen ay fukki hectare wala lu ko ëpp ci jamono yi nga xamante ni mairie yi ku ci ne ñu ngi la jox ñett gën gaa bëri fukki hectare muy loo xamante ni dellu na ci moom njiitu réew mi. nouvelle ville de Thiès bu ñu la woonee répartition bi te ñu ne la daanaka jege na 3000 hectares maanaam ñetti junni hectares nga xam ne. ñu bare bare bare bare am jafe-jafe dëkkuwaay ci biir Thiès ak ci yenn parti yenn fi jege Thiès waroon nañ faa mën a dëkk ak yu bëri yoo xamante ne mën nañ ko def waroon war nañ ko def ci biir réew mi te ñu am problème mu suuf def ko ngeen ko gisee ak man gis ngeen ne bu ñu xoolee ni ñu seddalee mbir mi ñi fi nekkoon jiite ànd ceeg ak ñenn ñoo xamante ne borom alal lañu ñoo ko pàccu ñii jël ay 10 hectares ñii jël 1 hectare ñii jël 3 hectares ñii jël 5 hectares ñii jël 30 hectare ñu jël hectare hectares kenn koo xamante ne am na lu ëpp 200 hectares ci kenn benn doomu aadama te dara mayu ko ko lu dul dafa jege nguur kese. au même moment ñu jël daanaka lu 3 hectares lañ séddale ville de ville de Thiès mu maanaam 3 hectares mooy 120 parcelles yoo xamante ne moom la ville de Thiès joxe ay citoyens nga xool ci wet ñuy jox ay nit 100 100 hectares 200 hectares 300 hectares wala 10 hectares sax wala sax benn hectare. wala sax 40 parcelles pour kenn koo xamante ne xam na ne moom laay waxal ni kon daal ñu seetlu ni am na ay jëfin yoo xamante ni teguwul ci yoon te askan wi ñoo ci loru loolu nag moo wundu décision bi nga xam ni njiitu réew mi jël na ko. ma bëggoon Sénégalais yi xam ni li tax ñu arrêté li ñuy def ci sites yi nga xamante ne moom la ñu visé te dafa am ay actes nag yu mu concerné c'est pour bañ ñi nga xamante ne niñ ko xamee ñun ñu ngi nekk di gaawantu. ci diggante bu ñu leen wàccee ci nguur gi ak bu ñuy dem ñuy gaawantu pour ñu signaler leen ñu am ay bo wala ñu am ay titre foncier pour nes état yaa ma jox léegi maître ñu li ñu wax devant les faits accomplis maanaam tegal ñu situation boo xamante du ñu am nu ñu ko def loolu moo tax ñu arrêté lu ñu arrêté arrêté lu ñu arrêté nag pour xoolaat pour tamit li nga xamante dig nañ ko Sénégal yi mooy jubbanti parce que yu mel nii buñ koy def ñu ko def teguñu ko njub jubaluñu moo tax ñu war ko jubbanti te buñ ko jubbantee du loo xamante ne day delloo day ñëw ci ñi nga xamante ne ñoo yegg ci nguur tey du loolu ñu ma àndal xam nañu ko mais mënuloo jël lu mat ñaari junni hectare wala lu ko ëpp ci biir commune Kër Moussa bi ngay jox waa Kër Moussa suuf nga jox leen kese fukk fukk fukk parcelle ak juróom naka lañ koy seddoowee après nga jël ay toolu jàmbur donte loolu boo jàpp ne sax mënta ñàkk mais xalaatal ni waa Kër Moussa dañoo am fu ñu war a dëkk dañu soxla ay aire de récréation dañu am ay aire foo xam te ne ay terrain football la ay stade te municipalité bi jooy na ko ba sonn mënu ko am lii nag moo tax sénégalais yi fal ñu fi te incha allah rabi dinañ ko doxal ba fu mu yem. président de la république Bassirou Diomaye fay wax ni ne dinañu càmbar waaye tamit dellu si ci loolu nga xamante ni ay jëf la yoo xamante ni askan wi lay lor te loolu rek. moo wundu décision bi nga xam ni jël na ko ngir dakkal loolu nga xam ni moo di procédure ak lu jëm ci wàllu kayit jëmale ko ci suuf muy nag ñaax service yi nga xam ni ñoo yor wàll wi ñu gën a wéy ci dogal boobu ba fileeg ñuy leeral lépp